moo di ni bi ñuy yeewoo dañuy dégg ni Karim Wade am na journaux yu bëri ñu ni ay avocat am nee nañu dana am kayit dana génn dana bokk incha allah ci élection yi nga xam ne moom la ñu dégtal présidentielle en 2024 ñeneen ñi nee nañu du bokk du am kayit du bokk ci élection yi léegi tey jii dañ lay laaj nan nga gisee yow. waaw man yaakaar naa ne eh, Karim Wade dafa bëgg yàpp Sénégalais yi. ndax su fekkee ne moom dafa génn bitim réew PDS sax noon na exil forcé la ñeneen ñi ngi ko seqal ñu ne moom moo fa bàyyi boppam président Abdoulaye Wade tam bi mu dajalee commité directeur bi euh, avant élection deux mille dix neuf élection présidentielle bi noon na Karim Wade fa mu nekk moo fa bàyyi boppam gis nañ tam Karim Wade ay yooni yoon yu bëri mu ne day ñëw gaayam yi fu ñu toll ne Karim day ñëw muy envoyé message à bientôt mais loolu yëpp dara amu ci man dama yaakaar ne su fekkee dafa bëgg politique ci biir réew mi dafay poser ay acte politique mu ñëw ci biir Sénégal su mënta ñëw Sénégal mu dem France nga nga xam ne fa la juddoo fa la yaayam juddoo ndax am nationalité française am nationalité sénégalaise waaye nekk fële eh, ci WhatsApp bi heure bu ko neexee mu sànni fa ay message journaliste yi sénégalais yi topp ci di di di ko di ko jël di wax pour yëkkati turam wala mu jël avocat tey comme ni ñuy wax nii tey euh, ne Karim Wade euh, li nga xam ne xañoon nañ ko ko léegi yoon delloo na ko mooy mu nekkaat électeur man dama yaakaar ne loolu dafa war a ñëwal boppam ndax xam na moom ne Karim du du ñëw Karim du bokk Karim ñëwul deux mille dix neuf la ko tere woon ñëw deux mille ba léegi moo ko koy tere ñëw deux mille vingt quatre. papaam moo ko gënoon nekk avocat fop waaye papaam du politiquer avocat le procès Karim Wade est terminé avocat ci biir procès lañ koy soxla mais fii ñu nekk nii procès bi jeex na kon li des mooy mbirum politique su fekkee ndaa bëgg ñëw na ñëw mu politique mais bu mu nax sénégalais bu mu fooyee sénégalais yi ndax tëdd fa mu tëdd ca hôtel ya moom xam na ne moom ci boppam mun mënta ñëw Sénégal kon day nax sénégalais yi. tey jii nii euh, bu fekkee nii ñi ànd Karim Wade nee nañu Karim Wade dina ñëw ñoom tey jii fan la ñu mën a wax nii foofu la ñu teg ni Karim Wade dina ñëw. waaye wekkuñu ko fenn ñoom yàgg nañu wax seen Karim day ñëw te Karim ñëwul donc Karim dina ñëw moom kenn gëmu ko benn sénégalais gëmu ko kenn du ko gëm bala ñu koo gëm Karim day ñëw taxawal boppam Karim bëggut politique. Karim mu ngi ci la ko neex te Karim du ñëw nit ñi li ñuy xaar daal Karim Wade su fekkee dafa bëgg a politique mu ñëw def comme Idrissa Seck ni muy def wala mu def comme man wala keneen wala comme ni Sonko di def ah wala mu def ñëw keneen def nii ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Macky Sall def ñëw ci terrain bi tëdd fa mu tëdd alors buggu di di politique ci biir Sénégal loolu du sotti Karim xam ne du ñëw les avocats laa day yàq xaalisam xaay bu jox avocats yi ko jox militants yi militants yi dugg ci terrain yi moom itam na ñëw mais on ne peut pas la politique avec des avocats avocats yi ca biir dañuy plaider à l'intérieur des tribunaux mais en avocat ne plaide pas en dehors des tribunaux euh, dem di euh, plaider ci ay euh, ay ay hôtel lak ay salle de conférence ak mais loolu du avocat avocat yi ci tribunaux yi la ñuy la ñuy la ñuy plaider donc Karim xam na ne du ñëw parce que la politique ne se fait pas à travers de avocats tey jii euh, ñu bëri dañu jàpp ni c'est un procès politique Karim Wade ak euh, l'État sénégalais parce que boo xoolee rek ci condition yi nga xam ne Karim Wade génnee na ko Sénégal étant prisonnier ci anam yi ñu ko defaree ay këyitam bon ñeen ñi sax nee nañu finalement dañu couper lampe yi couper réseau yi tegal ko jet privé mais kooku vraiment du prisonnier comme prisonnier wala un prisonnier dans les prisonniers loolu tamit ñu bëri ñu ngi ni lii procès politique la. Pape Abdoulaye Wade nee na ah une affaire politique se règle politiquement gis nga euh, juge Téliko doon na ko wax euh, bi mu jàkkaarloo ak euh, président Macky Sall ci ouverture des cours et tribunaux defe naa 2013 la woon mu ne procès mu ngi commencé ci suñ lay ubbil information ci cas phase préparatoire boobu ba ba ñuy pro dernier verdict bi mooy cour suprême su prononcé woo nee na procès ba jeex na donc fi mu toll on est plus dans le temps d'un procès fi mu toll on est le temps de la politique c'est dans le temps de la politique ki ko président Macky Sall gracier léegi il reste une seule phase mooy la phase de l'amnistie pour mu mën a ñëw Sénégal te loolu pour affaire politique la ça se règle politiquement loolu nag su nekkee fële wala di sànni ay xeer wala muy yónni ay avocat ñuy wax ci rajo yeeg télévision yi loolu du ko régler li ko mën a régler mooy na dem waxtaan ak ndeyu mbali gi su fekkee ne dañ koy amnistier ñu amnistier ko mais Karim daal situation bi mu toll nii du ñëw du bokk xanaa nag Karim Karim yi ñoo ki topp nag Karim Karim am na ñoo xam ne yaakaar ne su Karim ñëwee lu mu ruusal ñu for wala comme PDS Karim dàq na ñëpp ñu mën a am place moo fa bàyyi nit ñi mais koo xam ne da ngaa bëgg dara ëllëg sur le plan politique. doo topp koo xam ne mu nga tëdd fa mu tëdd tegale ay tànkam nekk dans les hôtels uri ay ni yu wër ko ah yow ngay nekk fii di xoslu di di ko eh, di ko politiqual loolu enwul maanaam pour Karim c'est fini affaire bi nag sa peu se régler politiquement mais ni mu ko bëgg a régler nii toujours justice en dehors des juridictions kenn mësu koo dégg donc lii ñii di wax ñii yëpp avocats yi sax xam nañ ne xaalis la ñu bëgg ñu am nañ ci xaalis mais xam nañ ne une justice ah ne se règle jamais en dehors des juridictions. jërëjëf monsieur le ministre suñu la déggee kon dafa mel na ni euh, Karim Wade tey jii nii procès bi ni mu demee ak ni mu nekkee bitim réew euh, Macky Sall jéggal ko politiquement moo ko war mën a dellu Sénégal. amul beneen solution parce que Karim jeexal na c'est-à-dire euh, li ma la bugg sénégal yi comprendre ko mooy su dee affaire atte la jeex na. Karim kenn mënatu koo atte ci lii su dee dañuy tax ay révision de loolu mën na dem ay téeméeri projet Mamadou Dia ngi nii ba kañ la gars yi doon demandé depuis combien d'années nañ ko réviser kan moo ko mos a réviser donc un projet ça ça ne se révise pas comme ça il faut mu am des faits nouveaux donc li man a am mooy jéggal boobu nga wax amnistie amnistie nag président bi mën na koo initier comme l' assemblée nationale mën na ko initier su fekkoon ne assemblée ba dañoo demoon vote ñi ànd ak Karim wala ñi ko bëgg a jàppale ëpp fa doole mën nañ ko dugal wote ko. mu nekk une proposition de loi président bi tam nii mën naa am un projet de loi mu toog ko moo ëpp doole foofu mu def projet de loi envoyé ko assemblée waa assemblée daal di koy wote ñu jégal leen comme ni ñu woon ñoom Clédor mais su dul loolu Karim Wade fii Karim Wade du du du ñëw du bokk te Karim Wade man li ma gën a jaaxal mooy su fekkee ne nee na yow comme ni nga ko waxee nga ne nguur gi ñoo ko teree ne ko bu mu ñëw Macky moo ko teree ne ko bu mu ñëw xanaa Macky moomul France xanaa Macky téewul frontière pour pourquoi France bay yaayam nekk fa ay nijaayam nekk fa ay bàggeeram nekk fa ay doomam nekk fa moom mu juddoo fa nekk français d'un côté lan moo tax moom du dem France kon xam ngeen ne Karim ku mënta dem France da mën a ñëw fii da nga mën a ñëw li ko tere ñëw Sénégal yaakaar naa aussi loolu moo ko tere xanaa dem France mais tey jii nii euh, bu fekkee ni. Sénégal France du benn France kenn topp ko fa kenn topp ko fa dara kon les Sénégalais dañuy laaj lu tax yow France. kenn topp la fa dara te yow mënoo dem France xanaa kay mën ngaa tuumaal président Macky ak ak ñi la bañ ak ñi àndut ak yow Sénégal waaye xanaa mënoo leen tuumaal ci France lu tax demu fa. mais xëy na tamit du ñàkk agenda agenda moo ko amul benn soxla bu mu war wuti France na loolu moo ko ter dem France. no kon nag dafa yàpp sa militant yi PDS ya nekk France ak karimiste ya ya koy xeexal moom mu dem tëdd fa mu tëdd calendrier mayu ko mu dem gisanteeg ñoom kon da leen yàpp